ndax yàlla mësuloon ba dispositif bi nu en place dans le département lu mat fukki fan ak juróom yoo xam amuñu benn cas cas ba kër nga xam lañ nekkaloo ñu tudd leen ay cas contact aussi fan leen euh, yóbbu aussi fukki fan yi depuis weekend passé ba donc si si si malheureusement am ñaari cas yu ñaari kaa yu bees yi ñu am aussi ñu wax ni du lu nu jëlee fii ñooñu si seen bërëbu liggéeyukaay yéen ñuy liggéey te nekkul sax si biir département bu Tëngéej ci beneen départ yeneen département la fa la nekkoon en contact ak nit ñoo xam dañ ko am foofu lañ leen wàllee. officiellement am na ñaari kaa yu positif yoo xam ni laalante nañu ak fanweeri nit ak juróom fanweeri nit ak juróom yooyu aussi ñu laalante jël nañu suñuy matuwaay. ba dinañ leen yóbbu foo xam ni fa lañ leen di dalal pour mën a saytu seen seen seen wér yaram nan lay évoluer